mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di euh, nuyu saa su ne rek euh, di am mbégte ak contentement euh, di ñëw ak yéen ci émission tam tam fii ci RTS 2 di xamal leen rek vraiment Yolande elle est bien à Dakar Inshallah, très bientôt nous reprendre émission tam tam mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ne journée mondiale bu météo le 23 mars de koy célébrer moo tax itamit Maymouna Sy nekk ci sunu plateau ak docteur Marianne Diop Kane bu service météorologique bu Sénégal. Sénégal dinañu ci indil ay leeral yu mag parce nag wax dëgg yàlla RTS nekk na chaîne bu nga xamante ne bi daan nañu indi mbirum météo ñuy xaar tey dana tàng fii wala et cetera wala daal marée bi waaye defe naa ne euh, météo am na leneen ak leneen lu nga xamante ne bi daal euh, ñoo ngi koy def parce que météo daal dafa mel na ëmb na li nga xamante ne bi mooy lépp lu euh, jëm ci daal daal doomu aadama parce que faaw ñu xam pour mën a bouger et cetera et cetera ak yeneen yu xamante ne mu ngi ci biir incha allah docteur Mariane Kane Diop dana ñëw ak ñun ci loolu mbokk bu ñu jógee ci loolu loolu nag euh, ñëw ak yeen euh, ci mbirum développement personnel euh, lan lañu ñu Badou indil tay mu ne daal consommer sénégalais tay nak mi ngi ñu indil ci secteur menuiserie waye tamit am nañu ben styliste bu nga xamantene bi moo ngi ci plateau bi ñaar lañu keneen ki dina ñëw bu ci kanamee ñu mën ko waxtané ci mbirum développement personnel mbokk yi bu ñu joggé ci lolu ñëw ak yeen nak ci mbirum société and ci ak sunu xarit Shadow dëgg la léeg-léeg dal dafa melni am na ñuy dem ci bureau yi dal dafa mel perte de temps dañuy dem daal maanaam liggéey naa te liggéey ba euh, duñ ko def na mu ak tricherie bi loolu euh, professeur Chado dana ci ñëw ñu mun cee waxtaan euh, ci plateau tam-tam sànq maa ngi koy wax nag mbokk yi dañuy am invité docteur Marianne Diop Kane di nekk fële service météorologique bu Sénégal waaye tamit Amadou Dia nekk styliste mbokk yi madame Régie dellu siwaat saa su ne nak mbokk yi euh, dañuy euh, am mbégte di dende ak euh, badukan waaye dafa melni nak tay dende bi badukan dende ak Maymuna Si defe naa dafa nek mbirum xawa lekkolo <laughs> parce que Maymuna buñu ko xamé dañu né label 221 tay nak badu indi ñu tamit label 221 ci mbirum développement personnel mbokk yi mu nek lu am solo badu ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm saa su ne ci mbedd mi ah dañu may wax amé ah, ana ana ana grand badu may len grand badu mi ngi fofu parce que tout simplement mi ngi xawa gindi nak vraiment ay nit ci vraiment orientation orientation bu ñu mën am euh, ci seen biir liggéey ak si développement personnel parce que loolu defe naa ne euh, mooy aider doomu aadama yi ñu dem xuus bu baax ci li nga xamante ne bi loolu la ñu bëgg def badu nga ñu ñul tey daal label 221 mu saf nu lool. alhamdulilah sant yàlla maa ngi nuyu. Mhm. yaa xam di nuyu Amadou di nuyu docteur kan mhm. ak di nuyu madame Guèye. <laughs> mais li c'est très simplement Sénégal fa mu jëm kanam incha allah. Mhm. li mun def pour sukkandiku suñu mbokk yi. gars yi jëm kanam. loolu la ñuy liggéey très très bien mbirum menuiserie rek xam naa ne nag ñun ñëpp bu ñu ci jàppee yaakaar naa ne

Yaxam ma lay fay euh, di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun saa su ne ci biir émission tam-tam euh, comme ni nga ko waxee nag météo nekk lu am solo euh, ndax nit ñi foofu la ñu war di xool pour xool ëllëg en fonction liggéey bi ñu war a def ndax dina baax am déet mm-hmm. ci domaine bi nga xamante ne si la ñuy yëngu mm-hmm. mool yi ci la ñu bokk mm-hmm. ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci aviation si la bokk je pense que ne dinañ am occasion dellu si waat ci ni mu gën a yaatoo bu ci kanamee tuuti boo xuusee waaw très très bien may mun a waaye ñun tamit léeg-léeg di xool météo bi xam exactement lan nga war a mën a sol tamit Euh, dafa ñuy intéressé lool euh, mbokk yi ñu ci euh, dalal jàmm bu baax nak docteur Marianne Diop Kane nekk fële service météorologie en tout cas ñi ngi lay nuyu di la dalal c'est un plaisir recevoir la tenante nag sa saa su ne su ma de ay jigen ñu nga xamantene bi dafa am ay structure ña fa nek difa def liggéey bu rafet dafa ñuy neex en tant que jigen ñi ngi lay dalal jàmm bu baax baax ci sa tew fi ci émission Tam Tam merci Yaham. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu di la fay mm-hmm. di nuyu euh, mboolem téléspectateurs yi ak ñoo plateau bi mhm. Maïmouna Badou mhm. et l'invité Amadou très très bien oui euh, madame euh, Kane ñu gis nak vraiment sank ñun koy wax xamna dinañ ci dugg mu dal service bu am solo bu nga bi dal euh a nga fay def bu rafet ci Sénégal deug la ma ni ni ko Maïmouna waxé won sank mhm. que tay dañuy célébrer effectivement journée météorologie mondiale di fàttali bés nous ñu organisation météorologique mondiale di kuréel bu mag bi toog au niveau des Nations Unies mhm. war a toppatoo lépp lu jëm si euh, mbirum météo mhm. mbirum temps mbirum climat mbirum ndox bi mhm. ah, ndaxte météo dafa di euh, liggéey boo xam ni benn dëkk moom kenn mënul dem dafa collaboration adina bi yëpp. très bien donc looloo taxoon ñu euh, créer ko de sorte que. Mhm. lépp données yu ñuy récolter ci benn réew réew yëpp mun ko àndandoo bokk. Mhm. ñu seddoo ko mun a xam naka la ñu mën a defee prévision yi. très très bien euh, kon nag euh, mbokk yi gis ngeen ne météo am na solo lool di baamtuwaat ne journée mondiale bu météo tey jii le 23 mars donc ñu ngi koy célébrer fii ci Sénégal ci nag tutelu ANACIM muy agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie pour nag ñu ñëw ci plateau bi waxtaan ci.

man mool laa parce que si famille mool laay dunde sama yaay sama papa samay dom samay frère samay cousin ñep ay mool lañ dañuy dem géej donc ñun suñu ali bi mooy suñu cosaan mool lañ ñun naturellement jigen ak góor ñep mool lañ amuñu benn métier mool rek lañuy def dem géej. La pêche c'est familial. Depuis les anciens, nous ici c'est langue de barbarie qu'on appelle. Il y a des pêcheurs seulement qui nourrissent ici. Sans la mer, ici, c'est rien. Ici, on ne connaît que la mer. Les poissons ont changé. La, grande taille qu'on trouvait bien avant, on ne le trouve plus. On trouvait les, les dentex, beaucoup de dentex, on ne le trouve plus. On trouvait beaucoup de chauffe, on trouve peu. Des mérous, on trouve des mérous de petite taille et on trouve des mérous à grande taille et à une valeur commerciale importante on trouve des phénomènes qu'on ne trouvait pas. Les vents aussi, il y a un dérèglement. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves les, les, un, à ce ah, tu trouves là le matin, les vents ont changé aussi de, direction. Le vent, c'est fatigant à la mer. Si le, vent est venu à la mer, nous, on ne peut pas, même pas résister sur ça. Il y a beaucoup de morts qui sont là-bas. Mais actuellement, comme météo est là, si le vent va venir, lui, il va nous informer avant, autant, avant qu'on parle. Maintenant, on, bon, on est satisfait quoi, par rapport à avant. Maintenant, avec l'information du météo, donc daf ñuy defal panneaux comme panneau vert bi wan nañu ne mën nañ dem géej defal ñu panneau jaune wan y a quelque chose qui ne va pas def ñu panneau rouge mu avertir nañu ne tey un danger ci le géej Donc, donc jarul ñuy dem parce que danger c'est très dangereux avant ñuy def euh, formation bi ñu avec fi météo boobu temps métti woon torop ci ñun parce que dañ doon dem di am ay mort yo xam ay accident yo xam duñu xam ci lan la situé wu lu ko provoqué maanaam dinañ dem ba biir geej geej gi yëngu suñu ginnaaw vague yi jóg dëpp suñu gaal yi en 94 amon na ci benn accident bo xam c'était mon cousin dafa dem geej geej gi yëngatu mu dee après biñu ko corps bi rek lañ gis mu dee mënuñu justifier la moko ko parce que vent bi la won ak vague yi. Euh, actuellement avant qu'on part à la mer on va éviter les météos même on a le numéro de téléphone de météo. C'est lui qui va nous informer s'il y a un mauvais temps ou il n'y a pas le mauvais temps. Si ça te renseigne quelque chose que ça te plaît, tu vas partir et tu vas pêcher et tu vas revenir. Comme cette fois waa mbokk yeeg xarit nak ngeen gis euh, élément ANACIM boobule euh, en tout cas dal ñu gis euh, may importance météo bu baax baax parce que ndaw si mi ngi koy wax nee mi ngi éviter ay accident yu bëri parce que nee panneau vert mi ngi koy expliquer panneau jaune ak panneau rouge météo dal vraiment liggéeyam may amna solo. je pense que de plus en plus les nit ñi ñu koy comprendre bu baax. Mhm. peut-être xeyna Nous bu ñu tout temps tous sétane da nga les def. est-ce que amna Nous sommes jox mais ñi nga xamantene les nek ci ay secteurs yo mhm. euh, prévision météo yi da je pense que ñom xam nañu portée bi. xam mhm. nañu importance bi. ñi nga ci reportage bi ñu gis gis comparaison at yu ya ak Euh, li nga xam ne daan nañ ko am ci ay nit yuy faatu du ñu xam lan moo ko waral. Mhm. wàññeeku na bu baax. parce que léegi danañu déglu météo danañu xool. Mhm. buñ leen artoo neleen ah suba de moom na ngeen moytu fii ak fii wala ah suba diggante waxtu sàngam ak sàngam de bu soo leen mënoon a dem. Mhm. mooy gën. je pense que ne loolu c'est des évolutions yoo xamante ne vraiment euh, jaroon na euh, ñu wone ko fii jaroon na itam kenn ku nekk mu xam ko wante au-delà de ça. oui euh, sànq madame Kane mi nga xam ne moom directrice météo mu ngi koy wax météo dafa nekk ponk boo xamante ne lu am solo la et je pense que ne madame Kane dina baax nit ñi xam ne du du ay gisaane comme ni ko ñenn ñi <laughs> yaakaaree <laughs> donte ça ne prévision mun nañ ko tekkee noonu en wolof.

jàngat d'accord lan ngeen ci wara comprendre mhm. yan euh, incertitude mhm. mo ànd ak prévision bi mhm. naka la alerte yi di demee alerte yi dañ leen koy yónnee ñoom ndax dañuy travailler ak euh, seen i communiqué ak par SMS directement donc ci seen i portable daañu jot SMS yi donc euh, dafa limité ndaxte bu ñu xasee ba dem géej ñaan yi lañ fay yàgg dootuñu jotati message en tam laa ñuy dem daañ leen di jox message yoo xam ne daañu xam ndax géej gi na yëngatu tey suba ak gannaaw ëllëg hmm. jox leen euh, temps bi nga xam euh, euh, risque amna ah. d'accord waaye li ñu def li gën dañu ci liggéey te amaguñ ko moy mhm. dañu am ay équipement yo xam même bu ñu nekkee biir géej bu ñu leen yónnee message dañ ko dañ koy jot hmm. ndax mën a daw gaaw ci d'accord

ci taw bi lañu wax ndax nawet bi dana wala du mhm. nga ñu liggéey ak ñeneen mhm. service agriculture vulgarisation protection des végétaux ñooñu ñu groupe de travail seet lan lañ leen di conseiller mhm. bu nawet bi a bu bon ay ay taxaw taxaw taxaw taw variété

mais ni dañ leen di emprisonné. Mm-hmm. duñ mën a ci dox yeneen soxla. bu ko defee ñu liggéey li ñu war a liggéey yëpp si tool yi. Mm-hmm. Ah. et c'est vrai que madame Kane loolu yëpp Badou euh, dañu koy faral di gis donc je pense que euh, dafa dafa dafa important te yaakaar naa ne émission tam-tam ñi ñuy seetaan démb rek mi ngi am ku naan ma wuu man dama ci jàng mais yéen a ngi jàng yéen ñuy seetaan waaye man mii di présenté maa ngi ci jàng lu bëri euh, parce que Badou vraiment am na ñu bëri ñu nga xamante ne bi xam naa ne xamuñu woon lëkkaloo bi waa météo am ak baykat yi parce que ñun tamit Sénégal Sénégal euh, baykat yi dañu noo soxal kon nag nga gis ne lëkkaloo bobu nek na dal lu nga xamantene bi amna solo te da fay jëmele lepp lu nga xamantene bi dal ñong ko fi def sank wax nañ pêche bi gis nañu waye lamu wax ci agriculture bi tamit euh, am na solo bien sûr xam nga météo maintenant mbir la mo xamne bo boo nekk xale ñëpp koy xeeb mhm. waaye ba dee jëm mag ba xam mhm. nga xamne muy agriculture muy élevage muy aviation moy ñi nga xam ñu nekk ci géej bi di di tek ay par exemple ay euh, ki moy tuyo yi nga xam pour pétrole bi la ça mhm. veut dire que météo ça sauve des vies mhm. et ça sauve des milliards de dollars. Mhm. pourquoi parce que par exemple si par exemple compagnie qui xam mhm. bu par exemple ay tuyaux ci ça coûte par exemple près millions par jour ou 100 millions par jour. vous nee par exemple Tay à ah, géej bi ne yëngatu. gars yi bañ ko déglu buy mais ils vont perdre 100 millions ou 200 millions et ils vont recommencer à zéro. par exemple qui paye déglu woo météo ah lii dal ay waxu ay waxu ay waxu gisaan rek borul xa yalla baxna mais après bo dugalee sa xaalis mais nga perte ko parce que déglu woo météo cest météo science bo yalla bañu ko may mhm. il faut ñu déglu météo lepp looy def même tay sa bo ci business booy investir dans le futur nga xool am tay par exemple bu bu bu Brésil tawul mhm. café day cher mhm. mais tay bu le météo waxone ne Brésil narul taw yow booy investir nga prévu di nga prévoir fi ngay dugal sa xaalis xam naa ne dinañ ñëw aussi ci mbirum euh, roplaan yi parce que lolu tamit nek na lu am solo waye la loolu euh, ma dalal jam ah euh, Amadou Dia mi nga mm. xamantene bi styliste la nek ci sunu plateau Amadou maa ngi lay nuyu bu baax baax c'est aussi un plaisir mm. euh, nga feggoog ñun ci plateau bi maa ngi leen fay bu baax di nuyu ñëpp ñu bokk plateau bi di nuyu téléspectateur ets 2 du content tamit ci invitation di nuyu tamit badu bu baax a baax baax baax. très très bien est-ce que sànq ya ngi dégg waxtan bi nga xamantene bi mm-hmm. madame kan indil nañu ko ci mbirum météo est-ce que limi fi wax yow amna amna lo ci xam. waaw wax dëgg fa yàlla am na jàngat tamit naa si bu baax a baax a baax ndax ñun bu ñu nekkee xale dañ daan faral di seetaan RTS mhm. mais bu ñu gisaan image daf ñuy jaaxal lu ñuy jëlee kii bi di teg fii di teg fii di expliqué daf ñu daan jaaxal trop mhm. wax dëgg fa yàlla mais li ñu fi dégg nii jàngal la su ñun mhm. jàngal nañ si bu baax a baax baax très très bien ah. euh, léegi may ñu continuer ci li nga xamante ne bi mooy mbirum météo bi di fàttali nag nekk euh, vraiment euh, tey la ñuy féete li nga xamante ne moom mooy journée mondiale météo sànq ñu ngi koy wax mm-hmm. moom importance lool tamit ci mbirum roppalaan yi parce que roppalaan yi nit ñaa ngi ciy liggéey ñi ñaa ngi ciy def ay mbir et cetera te léeg-léeg nga dégg ne météo nee na benn avion bougé parce que temps bi dafa war a def nii et cetera donc daal vraiment seen liggéey yaatu na trop waaw yaatu na trop parce que boo xoolee domaine bu nekk euh, météo soxla na ko daanaka pour euh, mën a jëmmal liggéeyam comme ni ma ko junjee sànq. Mhm. Euh, yaa ngi wax sànq roplaan yi muy mbirum aviation ñoom seen bopp seen service mu ngi bokk ci ANACIM muy kuréel bi nga xamante ne moom lañ fi sanc teg ko fi pour muy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu aviation civile maanaam dem beeg dikk roplaan yi. Mhm. ak tamit météo mu mel ni nag ren sax ponk bi nga xam ne moom la ñu tànn pour waxtaanee ko ci 23 mars 2017 bi. Mhm. laale na ak li li jëm ci wàllu jaww ji docteur Kane effectivement euh, diggante euh, météo ak euh, aviation loolu kenn waxatu ko. Mhm. ndaxte benn avion très naaw. Mhm. te amul plan de vol. xam na ban façon système météorologique lay fek ci yonam mhm. naka la ngelaw mi wan nekk. avion bu naaw dugg ci. Euh, li li doon suñu thème bi tey di nuage yi nuage bu mag a mag a mag ngelaw yu bare si mu yëngal ko ami éclair mu lakk mhm. xam nga loolu xel xalaatu ko wante di nga xam fi nga jëm ndax nga définir ñu mhm. xam ñu définir seen seen plan de vol seen seen plan de vol seen route donc diggante aviation kenn kenn kenn kenn xalaatatu ko mhm. ah, foofu féete na boor xanaa yeneen secteur yi lañuy ñuy waxtaane léegi mhm. boo gisee sax ñu àndandoog ñoom ndaxte bu mhm. njëkk ba yaakaar météo dañ ne mét aviation civile dafa météo moom rek la doon joxe service aviation civile donc foofu féete na boor léegi ñeneen ñi kay la ñuy liggéeyal pêcheurs yi agriculture waaye énergie industrie cité cité nga si euh, baddu cité na si ñu bare fàtte na sax BTP sa kër boo tabax sax mhm. da nga wara a xalaat météo xam fan la ngelaw mi di uppe mhm. bu ko defee dina la diminuer sa consommation en électricité bu ko defee da nga mën a feex mhm. sans pour autant ngay euh, taal climatiseur lu bare bare mais est-ce que loolu noonu parce que ay ay ay xam-xam yu extraordinaire est-ce que <laughs> est-ce que sénégalais yi <laughs> côté boobu est-ce que mm. côté boobu tam dinañ ci gëstu parce que ah. comme li mu wax léegi-léegi nga am kër yu tàng alors que boo boo jokkoo woon ak ñoom mm. ñu ne la ah nii ak nii ngay defee mm. xëy na comme li ñu wax consommation bi dana gën a wàññeeku li ma ko jàngee Mexique uh-huh. mm-hmm.

ku tabax sa kër def euh, énergie solaire di nga am na euh, énergie bu doy bo dundé sa biir kër sans jël électricité mm-hmm. ah. yooyu yëpp dañ si war a war di bàyyi xel daanaka météo daal mm-hmm. def naa ni am secteur activité boo xam ne mm-hmm. laalu ko même si ni ñuy dundee bés bu nekk bés bu nekk ba ci li ngay lekk bés bu nekk bés bu nekk mm-hmm. bu tàngee war nga xam ban façon lekk nga war a lekk mm-hmm. bu seddee war nga xam ban façon lekk nga war a lekk lan nga war a sol dana tàng ndax dana sedd da nga amee feebar météo ne la ngelaw mi nar na bare poussière bi nar na bare humidité bi nar na bare mm-hmm. xam naka ngay def ndax da war a génne pull-over ak moom bu naaj gannaaw ñun suñu tàngaay suñu sedd moom suba teel la guddi gi donc bu fekkee da ngay faral di génn teel nga

waaw ci suba waxtaan nañoo ak suñu partenaires yi ak direction technique ou réunie. Il yëpp dañ leen invité woon fale sa aéroport mhm. ah, expliquer leen euh, thème bi mhm. waxtaan ak ñoom après ñu def journée portes ouvertes mhm. ah, pour euh, askan bi météo Cette li ñuy liggéey lu leen jaaxal ñu laaj ñu ko ñu expliquer expliquer leen ak journée portes ouvertes ci xale yi ndaxte euh, Amadou ñu wax sànq bu nekké xalé daf xamul won nu mu démé donc léegi dañu invité école yu bari bari yu ñoom ñu leen di expliquer lu ñuy def ak di leen di inciter pour ñuy jang jang yu jëm ci ci si météo météo dal pour gattal ku bëgg développement fokk nga and ak mom comme ñu nga ko waxee nga sooralé ko dik euh, lim lay wax nga di si bayyi xel ko fee kër kenn ku rek si li nga yëngatu da nga si mëna am ndam très bien en tout cas euh, moi qui euh, rek euh, ci am yu am solo te di fatali nak nek bi am solo te nuage nga bi ko koy ci 23 mars bi comme nous ko rek deug la côté bobu mom parce que kenn rop yek te xamul exactement fan lay jaar mm-hmm. ay tak ak yoyu daf am kon nak solo en tout cas ñu gën ci farlu bu baaxa baax ba de pare nak di am ci sunu chaîne yi monsieur météo wala madame météo parce que ñu ne tamit euh, dañu koy dañu koy soxla bu baax a baax madame Kane ah loolu def na ni RTS ah dan nañ liggéey bu baax baax bu njëkk ndax man mii sama ma mii sama bopp <laughs> madame météo laa woon ah, ah, dina ñu amaat beneen euh, madame météo ak monsieur météo des na rek si ñu signé waat protocole bi ñu dañ daal diffuser diffusé waatal émission yi comme ni mu ni mu waré loolu mooy lu ñu gën a ndaxte population bi daf ko soxla très très bien ñu ne ñu ne ma de l'autre côté mi ngi daw avant JT 13h bi <laughs> ah. avant JT 13h bi euh, dinañ am un tout petit peu de météo mm-hmm. ah juste après le JT 20h aussi ah, sous forme de D'infographie, infographie. mais amul nit ku ñëw di leen di waxtaanal. <laughs> exactement très très bien en tout cas euh, ñi ngi leen di parce bu a baax parce que nag am nañ collaboration extraordinaire avec le service euh, météo euh, mbokk yi ñi ngi lay gërëm di encore une fois voilà beaucoup de bonnes choses nous ñuy informer parce que nous tamit dañu sur l'eau. kon à très bientôt merci beaucoup. merci beaucoup ñu ñoo leen di gërëm gërëm invitation merci beaucoup mbokk yeeg xarit yi bu ci kanamee dinañu am invité bu recevoir sur suñu plateau kon euh, ñu ñëw ak yeen ci mbirum développement personnel euh, ànd ci ak sunu xarit Badou euh, badoukan. Badou Kane la ñu indil tay sank ñoo ngi koy waxtaanee ñu né consommer sénégalais label 221 mu jëmal ñu nak tay ci mbirum menuiserie ñu dem xol lolu recevoir benen invité bu tuddu Amadou di wat encore une fois madame Kan di directrice bu service météorologie fi ci Sénégal ñu dem régie dellu siwaat ministère yi moom mënul dem ci nit naan la jox ma liggéey ministère day toog xaar client moo tax léegi nag dañuy jéem a débrouiller di wutal seen bopp di liggéey di jaay parce que boo boo boo deful loolu tey jii parce que doo liggéey parce que liggéey bi léegi dafa am commercial quoi dafa am ñoo xam ne dañu yor seen xaalis ubbi seen place di teg di jaay léegi nag client yi ci ñooñu lañu dem léegi di jëndi. moo tax ministre yi léegi aussi foog ñu jéem a débrouiller di wut seen i bagage di teg di aussi ñuy jaay parce que bu dee loolu doo liggéey. ay père de famille la ñu maanaam lépp luñ ci for rek dañuy gaaw yóbbu ko suñ njaboot wala bu fekkee ñu ngi denc sax maanaam denc bi du mën a xaar ba ñuy retraité quoi ñun bu ñu dencee balay un an rek bon tabaski jot correcte jot événement jot dañuy dellu defaat ko ci quoi commencé à zéro quoi. bénéfice bi moom ngay téye. boo tee bénéfice bi la xam ne mooy matériel bi nga dem jëndiwaat bagage commencé waat di liggéeyaat parce que bu nekk boo boo defee loolu bu nekkee ne da nga jël bénéfice bi yëpp li xaas bi yëpp nga def ko si soxla yi bu subaa doo liggéey. ku ñu ci mën a jàppale rek daal liggéey bi matériel bi seer na bon client yi même bu dee ñu ngi fay sax maanaam si matériel bi lañ koy delluwaat quoi moo tax suñu liggéey bi naqar yi. toujours booy liggéey yaa ngi xool nu yokkute parce que bu dul loolu kon boo nekkee ne ci benn béréb rek nga yem bu boobaa saa yi amee soxla boo boo ci jëlee da ngay moo tax toujours da bëgg lu lu ko yokk. suñu retraite moo gën a métti retraite ñeneen quoi parce que bu ñu retraite tamit dañu ñàkkaale doole quoi parce que liggéey bi dafa ànd ak doole sàmm li ma wax maam da gis xale bu ndaw nekk si liggéey bi xam nga li ma wax mais balaa nga yegg yenn as rek nga mel ni waaw mi ngi noonu daal sa doole ay jeex quoi liggéey doole quoi bu nekkee man fu maa ngi yëkkati bant di yenu bant di dox distance quoi xam nga loolu raatuma mbokk yeeg xarit yi nag euh, loolu la ñu Badoukan euh, ci développement euh, personnel affaire menuiserie waaye ci côté bobu n'ak Badoukan n'ak la mëna développer nak je vais me répéter. Mm-hmm. développement personnel. xam nga ñaari côté la. Ah ah. ñaari côté la ben moy par exemple côté menuisier bi. Mm-hmm. ben moy côté population bi. Mm-hmm. mooy té par exemple si on consomme local bu consomme sénégalais. té par exemple yow mu nga nek par exemple ben pâtissier. am xaalis. sa business mu ngi dox. mais lu jënd menuiserie fii au Sénégal dangay xaar yi importé léegi nag mais yow sa client bi menuisier boobu sa mën a nekk sa client te moom tamit business doxam te war a comprendre y a un cycle boo xam ne dafa développé suñu dëkk mooy lan bu ñu consommer suñu dëkk ba pare enrichir les gens qui sont là daf ñu jëmale kanam léegi nag le Sénégalais lambda doit vouloir consommer nos produits fonk ko yoo xam ne bitim yoo tey tey boo yóbboo menuisier au Sénégal États-Unis mais ça coûte extrêmement cher parce que bois massif la

économiser mhm. comment planifier leur retraite comment gérer leur business d'une manière formelle mhm. xam nga xar day weesu mbote mhm. yow tu es un am nga ben métier mais il faut que le ko au sérieux mais ñu bëri ils ne prennent pas ça au sérieux d'accord mais ce qui cest que le problème c'est que ils vivent au jour le jour c'est-à-dire que tey am ben business as un ko tu as un business, ko mu un et puis voilà maa ngi xaar benen business donc côté bobu comme tu dis ñaari pàcc la ñom amna travail buñu wara def waaye population bi amna travail buñu wara def pour jàpp ci waaye pour ñu jàpp ci faaw ñom tamit ñu jappal sen bop c'est-à-dire tey par exemple soo doon menuisier xam nga sama sama maam Adjouma Diallo était un menuisier mhm. jóge fa dem bay tamax immeuble am mhm. amoon problème mu retraite était mhm. menuisier à la base so tay par exemple bu dé menuisier bi yow ya ngi liggéey mais duggal ci internet bi amal ordinateur do nga xol tubaab bi limi muy wa wala doxantul benen benen beneen boutique yi nga xam ne dañu importé yi nga xol seen finition mhm. te am ñu koy def mais mhm. bëriwuñu mhm. ñoom ñëpp te ñu war a manko tek finition yu bax mais sénégalais

Mm-hmm. ce qui est fait ici. Mm-hmm. mais tamit boo ça à dire bëgg consommer localement ça va pas dire ñu jënd lu bon. Mm-hmm. il faut garder yi defal ñu lu baax. du sérieux bu ñu par exemple dañ livrer par exemple tay bërëb sangam à 4 h dañ def ñu respecté seen cadeau c'est que loolu mooy ñaax xam nga liggéey ak lo mën mën mën liggéey. bu fekkee à la base ñu wax toujours mooy sa fondation spirituelle mooy doo wax dëgg. da ngay nax gaay da ngay nax say clients. c'est à dire que da nga war a toujours viser à long terme. client bu ñëwee tey. xam nga bés na màgg. doom yi na takk jabar yaa c' est à dire client ba faw la. mais jaay client benn yoon fàtte ko et puis loolu comme ni ngay wax yakarna né ne Maïmouna ba légui mang lay euh, gis euh, ngay déglou bu baax Badou mm-hmm. euh, au début les gens peut-être ne comprenaient pas lu mouné euh ne wax dëgg bi parce que tay ku nga xamante bi jaay nga ko lu nga xamante bi wax nga ko li ni la mel etc bois bi mala jaay etc mu dem ils se rendent compte que lolu nekkul lu baax mais du ñëwaat et donc loolu moo tax wax dëgg bi muy wax dafa nekk lu am solo euh, ci vraiment euh, bépp liggéey mu nit di def. waaw dafa nekk lu am solo muy base boo xamante ne dafa war a dëgër. Mhm. comme ni ko Badou waxee ndax mhm. nit ku nekk looy def lu ne. Mhm. sóor ci yàlla. parce que boo ci sóoree yàlla rek. mooy euh, sànq yaa ngi wax naan am na ay entreprises yoo xam ne duñ leen tudd. pour éviter de faire de la publicité mais je pense que ne buñ leen tuddee du doon publicité xam nga lu tax. parce que dem nañu ba nguur gi 15 pour cent yi nga xam ne moom la jagleel menuisier yi pour la commande publique te ñu jox leen ko ñaari milliards ak lu teg am na si ñoo xam ne ay doomu réew mi lañu te jot nañu compétir gagner ci marché yoyu mm-hmm. xam nga lolu donc c'est une fierté pour le Sénégal euh, Badou doon wax sank ma dellu siwaat ci ci ci ci ci soubassement spirituel bobu mm-hmm. wax deug bi day tax mm-hmm. par exemple bo jaayee yaxam lal bo xamantene ne nga ko lal bi mun na def ñaar fukki at mhm. dalay leer ne bés bu bébé gay maggé mhm. ba ñu war ko yeb ba war ko yóbbu xam nga ne buñ démé ba war ko wàcceel chambre à coucher ka jaayoon ya xam lal bi def 20 ans xelam ci kooku lay njëkk dem voilà donc juste un exemple bo xamné mën nañ ko joxe ni mhm. et euh, autant d' yo xamné mën nañ ko am tamit ci yenen secteur toujours ci yenen euh, je veux dire produit plutôt euh, ci biir menuiserie bi loolu am solo la nga may ma ma am dara lu ma si doole rek lu ndaw ci wàllu euh, euh, kii bi ni ñu koy waxatee sax. menuiserie bi euh, <laughs> oui parce donc en fait bi ba da ko indi si jamono joo xamante ne dafa ñëw parce que fan yi ñu génn rek ADPME. Mhm. benn ci kuréel yi nga xamante ne dafay dimbali. ñi nga xam ne dañoo teg ay petites et moyennes waaw. Mhm. ay ay ay PME état bee ko sos teg ko fi. Mhm. muy kuréel boo xam ne dafay dimbali les petites et moyennes entreprises maanaam ñi nga xam ne dañuy door a jug am ay këru liggéeykaay yu yem jamono yi fi ñu nekk nii mooy xool ba nan la ñuy def ba accompagner leen ba ñu mën a am lu ñu naan label mhm. parce que te boo demee ba ne label rek mhm. ba je pense que ne euh, qualité ma nga fa finition bu baax ma nga fa et surtout comme tu as dit jikko bi ak respecter les délais mhm. li nga xamante ne moom ngay jox sa client moi je pense que tey am na dëkk yoo xam ne tey par exemple boo xoolee Amérique dans les temps dañuy wax consommer américain mais mënoo ju américain boo ñëwoon di doopan oto boo xam ne jógul Amérique dañ lay xoolee dañ lay jéppi tey tey exemple Sénégal war na yegg foo xam ne bureau boo dugg la ngay gis taab yoo xam ne Sénégal waaw mais surtout nag côté surtout nag côté boobu mais nag comme ni nga waxee faaw tamit pour ñu jàppale ñu jàppale voilà jëm liggéey bi def liggéey gëm ko mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. xam nga liggéey jaamu yàlla la moo nekk ci liggéey doo wax dëgg doo jëm kanam c'est impossible moo tax ñu bëri si ñoom dañuy fay par exemple ñu tax ñun xam nga état bi ñoo si ñun gars yi ñoo si ñun mais parce que du boulot parce que parce que état par exemple le bureau tel ñu défar ko. Mhm. légui ne la jox la tel date. Mhm. date bobu nga rombo ko <laughs> mais non mais c'est vrai. mais soxor parce que par exemple état bi mhm. par commandé par exemple 100 tables. yo xam nga né def tables mais wuti morom nga bokk nga bokk contrat avec mom mm-hmm. dara new ci sous traiter ko mm-hmm. mais dañuy soxor bu bëgguñu kenn lekk ci mm-hmm. après far nag ñom ñu perte keneen ki perte non ça c'est dire suñu base bi yëpp ci affaire consommer sénégalais moy lan on doit faire des produits de qualité ah absolument et des gens qui dirigent ces produits là nekk ay gens de qualité tout à fait parce que produit de qualité ak nit ko bon produit bu bon lay nekk right so il faut que gars yi xoolaat seen bopp mëna na poser match sénégalais nga xamné ne import bu ñu kenn ko jënd soo sax état yi teg ay règles bu la fi indi import mais yow sa liggéey bu baaxee am na comme nga waxé nga xamné ils sont là

ñoo xam ne moo tubaab bi yëpp ñëw dañoo xool keroog rek waa ji xaw kenn ci candidat yi mu ngi naan Afrique dëkk bi nga xam ne gars yi ne peuvent pas traiter les matières premières dañuy yàpp parce que ndax genre yi non sérieux non dañuy yàpp dëgg de dañuy xas rek sa suñu xas neexut dëgg mais dëgg dañuy xas rek mais xas bi ñuy wax dëgg la parce que ñun ñoo gëmm suñu bopp teguñu ay jéego yoo xam ne fi ñuy permettre ñun tey ku ñu xool respecté ñu xam nga taxoon naa Sénégal Sénégal d'accord mais wañu la ngay liggéey mais tey par exemple ñëpp ñu wax ñëpp dañuy ràcc demee sa boor waaye Sénégal ñun dañuy ràcc demee suñu boor France bu ngi xëcc côté am américain ngi xëcc seen côté ñëpp ngi xëcc seen bopp waaye ñu ñuy xëcc xëccuñu dara ñu ñuy pousse leen jox mais mais nañu xëcc nag suñu bant suñu bant ñoo ko moom mm. gars yi ñu ko yóbbu defaraat ko jaayaat ñu ko mm. lu amul sens amul sens il faut que ñu yeewu léegi nag ci euh, vraiment ñi nga xamante ne bi rencontré nga leen te am na ñeneen ñu nga xamante ne bi ñoo ngi ñuy seetaan di ay mécanicien euh, maa ngi nuyu waa waa Mangeant euh, di ñeneen ñu nga xamante ne bi ñu ngi ci secteur informel bi yow lan nga leen mën a wax par exemple ñii am na ay ay problèmes yu ñu yu ñu soulevé li meen di wax non c'est très simple benn mooy sa jikko na baax. ngay mécanicien xam nga ne moom ci métti mooy ñëpp ils sont très doués. da ngay gis Sénégalais yi gars yi di réparer affaire yoo xam ne bitim réew mënuñu ko réparer. muy portable. Mhm. muy oto. Mhm. muy menuiserie ils sont mhm. très forts li jox mooy d' abord nañ sérieux seen liggéey. deuxièmement nañ fexe ba respecté seen délai yi. troisièmement un métier qui le meilleur finition bu baax mhm. ba dem jël ils ont mhm. fait l'école ñeu nak ñuy gérer business xam nga tay boy le business dama boy bu école mhm. management le ko gérer ma bëgg progresser dans 2-3 ans il faut que ñu mariage entre le formel et l'informel tout à fait informel ba faw man am nga métier wuti boy bi xam dafa ñuy formel formel nga jël ko moom mu lay gérer sa management bu mu laal sa xaalis bu neex bu mu signé dara. waaye na la gérer ak yow say <laughs> non c'est que defal la ay ay ay plans yoo xam ne dans le futur. par exemple dans cinq ans fooy nekk. exactement par exemple dans dans defal la sa planning defal la organiser le. dans deux ans war nga mun jaay Dakar. dans cinq ans war nga dugg Mali. dans dix ans war nga dugg Amérique dans quinze ans war nga dugg France et ainsi de suite nga xam ne am nga koo xam ne. Mhm. yow jànguloo mais jàngali am maanaam mooy métier bi utal koo xam ne jàng na mu former sa li informel. ci très très bien léegi nag laata ñuy ñëw nag euh, ci euh, euh, ñi nga xamante fàttali mooy sunu invité yi. Mhm. Euh, Badou dañuy nag vraiment au nom de toute l'équipe de la RTS 2 euh, en tout cas moom laa na doon commencé sax mais suñu directeur monsieur Omar Ba euh, directeur RTS 2 ak antenne régionale tey la anniversaire vraiment dinañu ci ñëw ca cappaandawu émission bi dinañ ko ko souhaité bu baax a baax ñaanal ko parce que nag suñu directeur bu baax la. Mhm. Badou ñu ñëw vraiment ak suñu ñaari invité yi. parce que mhm. toujours le développement personnel gis nañ ne que jeunes surtout jeunes yi nga xamante ne nekk ci banlieue bi ñu ngi def liggéey bu rafet di def ay

li nga sol label 221 la hmm. kon nag nga gis nek que vraiment ñi ngi ci xëccu pour hmm. dal mbir yi baax ñu gis nak nek que vraiment ay jeunes stylistes hmm. nek fele euh, ca ca Pikine ah euh, ñëw ci suñu plateau mu nek dal ben euh, ñaar ñu and ñu nga xamante bi dal c'est c'est c'est un peu rare de de de voir de voir ça de amee ah, dém dama ben conférence ci Pikine mu invité woon et je les ai rencontrés vraiment ñu impressionné ma benn association de Kogapo euh, def naa euh, collectif des groupements des des naka des associations. des jeunes des mm-hmm. jeunes de de Pikine mm-hmm. so boy ñom dañuy toog ñu ma ñom ñoom ñoom ko wax ñu ne dañoo tok amuñu liggéey. Mm-hmm. gaay yi dañuy dañuy jóg seen bop ils sont levés. créer benn association bo xamné fond de l' entrepreneuriat. ma rencontré ñaar yi. ils m'ont vraiment impressionné. Amadou. Amadou et Amadou ak Amadou. Amadou Amadou. très très bien parce que xam nga c' très important tay pour voir que ñom mieux que moi.

waaw tout d'abord damay damay leen nuyu. Mhm. kenn ku si ne sa tur sa sant. Mhm. di am mbégte bu baax a baax teew seen plateau. tam mhm. tam. yàgg nañ ko suivre nag kon tey buñ fi yàlla wamatee ba ñu ñëw fi dañuy mhm. gën a santaat yàlla bu baax di leen remercier mhm. euh, di nuyu suñu grand Badou mhm. ku yàlla baaxal la nag jéem nañ xamante waaye mel na ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay te bu du papa lañ koy xoolee dante mat ñu ko waaye teel la ñu ko jox moom Badou di ko remercier bu baax a baax euh, ànd bi dafa yàgg waaw diggante ak Amadou Amadou yàgg la depuis temps xale la te yàgg na dégg tur bu nekk Amadou Amadou Amadou. ak mhm. yeneen Amadou yoo xamante ni maanaam dañu koy tuddee daal. Mhm, mais benn américain muñ tuddee Amadou Amadou. Mhm. parce que euh, di nuyu suñu président Moustapha. président moom moo ñu boole américain bi. parce que bi mu ko waxee ne ko Amadou Dia dafa am problème bët. américain bi dana ko dinaa ñëw Sénégal. su mu ñëwee dinaa def ak ñoom rencontre. pour gisante ak moom. bi mu ñëwee après si lañ fa dem. ñu gisante ak américain bi. su li laaj na tudd mhm. man ko man Amadou mhm. su la laaj Amadou Dia Amadou Dia ne ko Amadou laa tudd comme mu ne Amadou Amadou mhm. affaire foofu la jógee Amadou Amadou Touré. d'accord mais ànd bi dafa yàgg. d'accord ay ay ay xarit lañ yu dëggu daal. waaw te kenn ku ci ne ngay wax sama moom dëgg. Mhm. moo tax ànd bi yàgg. très très bien mm. léegi nag stylisme bi moom lan lan moo leen ci dugal yéen ñaar xam nga sànq yaa ngi koy expliquer. Mm. ne que Amadou Dia dafa am problème mu bët. Mm. Euh, su ma juumul depuis 2009. Euh, voilà de benn feebar dugg na ko donc mu sëgg. Euh, naka ngeen di lëkkaloo di di def liggéey boobu xëy na ma bàyyi Amadou Dia. moom mu ñëw ñu ci ah, ñëwal ñu ci loolu. yàlla dafa def ni avant lii li man daal ba ma bàyyee jàng téer laa doon def. Hmm. téer nga doon def waaw téer laa doon def su ma ne yaay moom doon jàngal métier maa ngi koy nuyu Assane Anne. Hmm. léegi ba ma dalee ba 2009 affaire yi daal ma mais toogu ma. Hmm. ndax man gëw ma yàlla teg la nattu rek nga toog ne yaa fuus. man damaa jàpp ne tey la sama àdduna gën a baax mais yàlla daf ñoo boole maag moom ñuy ànd. comme ni mu ko expliqué léegi nii mais dañoo toog. Mhm. jéem nañu fexe def lu nekk nag mhm. mais yàlla dafa def ni bii moo nekk bunt boo xam ne jàpp nañu si mooy suñu buntu réussir mhm. ñu ànd ak seeg suñu benn xarit boo xam ne talaa moom moom mooy ñëw affaire yi mais ñun ñëpp ñoo ñooy nekk ensemble di ko liggéey d'accord mais naka ngeen koy liggéey bëgg naa xam euh, parce que je pense que mm. c'est extrêmement important mm. euh, téléspectateurs yi xam ne que euh, macha allah yàlla bu la xañee lii dana la may lee naka ngeen koy liggéey liggéey bi maanaam tey jii modèle ñu ñoo koy xalaatal suñu bopp dañoo toog Moustapha ne pourquoi mooy leen jël ay vax yi affaire yi di ko ñëw simis di ko jaay ñu ne ko ankay mhm. modèle yi dafa nekk modèle yoo xam ne yu raa lay doon te affaire bi comme li ñuy wax bi ñun la mhm. tamit li ngeen wax sànq ba léegi maa ngi ma dafa toog ak sa benn xaj ci xoolal modèle bi waaw waaw ñoo ko ñaw très très bien ak na yeneen ak bu jaune bi jur jigéen la mhm. yoo xam ne ensemble lay doon tubay ak chemise d'accord qualité boo bëgg rek ñun boo ñëwee amul benn problème mun nañ kaa liggéeyal. maanaam xalimee ngi fi bëgg bëgg bëgg bëgg. Amadou Amadou bëgg bëgg ngi fi. amul Amadou la marque bi tudd. très très bien ñu nekk nag ay ndaw gëm suñu bopp. Mhm.

mi ngi góorgóorlu ci li nga xamante ne bi moom la daan def bëgg ko mhm. muy mbirum stylisme mhm. foo leen ci toog affaire moom ñoo ngi siy liggéey bu baax mhm. ñoo ngi siy waxtaanal tamit ñoo xam ne war nañ see waxtaan ak ñoom ndax bëgg nañ tamit Amadou Amadou nekk marque boo xam ne day am lu boppam ba tey ji ku ko sol rek da nga xam ne lii nii marque bi Amadou Amadou la bëggu ñu sax mu yem Sénégal yi kese bëgg nañ mu génn ñoo ngi siy liggéey te liggéey bu ñu liggéey qualité lay liggéey maanaam tey ji boo ko soxla woon commande sur commande lañ koy nga nga ñuy commandé wax ñu model wala ñu tànnal la modèle liggéey la loo xam ne tey ñi day jaar yoon mm-hmm. ñoo ngi si liggéey bu baax a baax a baax a baax ñoo ngi si waxtaanal tamit ñu ngi si war a waxtaanal ak démb Badou posé naa ko si question boo xam ne tey ji buñ bëggee affaire yi sori ban yoon la ñuy jaar tamit mm-hmm. jox nañu bonne idée te ñoo ngi siy sant bu baax. très très bien ah. Badou euh, ñu ñu ngi lay remercier parce que yaakaar naa ne ci biir développement personnel bi euh, la ñu ci soxla mooy à chaque fois noo am ay exemple mm. te defe naa ne exemple bi sénégalais yi gis nañ ko. Mm-hmm. muy ay doomu banlieue. nga xamante ne bii euh, kenn ay xarit lañu comme ni ko koy waxee ci biir loolu rek dëgg bi rek mi ngi ñëwaat mm-hmm. toujours mm-hmm. dañuy waxante dëgg fas yéene def liggéey euh, di ci gëstu yegg si ci yow nga xamante ne bi incha allah euh, ma ngi koy wax yaa ngi leen di jox yoon mm-hmm. pour que ñu développer li nga xamante ne bi moom la ñuy liggéey ba non parce que xam nga foo gis xam nga tey bu leen neexoon ñu taxaw du ma ñëwee foofu ba may dem kenn ñaanu ma dara kenn laaju ma dara dañ mën a rek grand la nga ñu mën a xalaatee pour ñu mun weesu fi ñu nekk nii xam nga boo ko déggee daf lay motiver

yàlla mooy si jàppale xam nga xam nga liggéey boo si jubbee waaw modèle yaa ngi nii modèle yaa ngi nii ah, rafet na de macha allah man moom naa ci commandé incha ah, allah ah ben oui <laughs> ah, on l'espère <laughs> et je demande à à à tous les techniciens de la RTS2 ñu commandé si ñoom Massayer ñoom Sabassi techniciens yi nekk fële tout le monde nañ ci commandé mieux encore yaa xam euh, label 221 dañu wàcc dem waaw am na yu jigéen nag léegi euh, réalisatrice bi comme ñom ana ak ñom mhm. Ami Collé ñëpp mhm. non ñun ñep dinañ dinañ commandé ñu parce que ñi mu jappalé genre genre boy moy mooy lan mooy mhm. des gens yo xamné yalla yàlla nit yi xam nañ leen bi Sénégal tey par imagine benn ministre yéré Amadou Amadou daa ni li seen Amadou mais ñu koy sax mais loolu mais c'est pas impossible bien sûr c'est pas impossible tey ministre war nañ leen woo commandé président war leen commandé pourquoi jappalé boy parce que ñi demuñu ci géej gi jéem ñuy dem bitim réew mhm. seen dëkk dañuy toog donc biir Pikine sàccuñu fenuñu di mhm. jéem a liggéey mhm. fa ñu jàppale leen ñes li mooy li mooy tax Sénégal jëm kanam lii moo tax franchement je le félicite de façon on continuer xool ni leen yaatu seen liggéey bi incha allah incha allah léegi ma bàyyi leen ñaar peut-être am <laughs> ngeen message yu nga xamante bi da koy lancé Amadou Dia moom message bu ñu lancé moom mooy wax dëgg fa yàlla àdduna moom nit ak lépp loo mënti doon da war a gëm sa bopp dëgg la ginnaaw wala yàlla wàccee nga doon doomu aadama fii kenn gënu fi kenn dëgg la ñun Seydina Muhammad lañ la ñuy si leeru yàlla lañ ko bindee ñun nag si leeru yonent bi la ñu bindee kon nag tey nit lépp loolu la yàlla def ak lépp loo war a def sa àdduna rek jubóol mm-hmm. mm-hmm. nga liggéeyal sa bopp mm-hmm. yàlla may la boo boo boo gëmee sa bopp rek yàlla yàlla la yeggale fu nga bëgg a jëm man li may a wax yenn kàddu yi Mm-hmm. mais ñun ñoo mën a may suñu bopp valeur mm-hmm. ndax nit boo tuutalee sa bopp rek ñëpp a xeeb la mais ñoo ngi kontaan trop si invitation bi ñun tamit kontaan waaw di nuyu waa Kokapo ñëpp ak président Moustapha Gueye ndeysaan en tout cas ñun ñu ngi lay ñu ngi leen Gueye <laughs> ñu ngi lay ñaanal <laughs> euh, en tout cas yal na yàlla barkeel lépp mm-hmm. parce que nee nañ ku ku ku jàpp rek yàlla jàppale la yal na leen yàlla defal jàmm bu baax a baax la nga moom li ma ci dolli bariwul Euh, li ma gën a neex. Mhm. mooy saa su nekk Badou. Mhm. daf ñu gëm loon maanaam nit dafa gëm boppam. dëgg la te boo nekkee ndaw. Mhm. am foo teg sa bët. dara warul ko mën a yàqal. ci boo gëmee sa bopp. parce que nit booy jaay gerte caaf sax gerte caaf bi ngay jaay nga gëm ko. ëllëg mu jariñ la te ñun si loolu la dox. te ji amadu yi. nekku si istri kese la dox. Ah. non non. d' accord hmm. man bëgg naa même bu dee kaasu ataaya sax. waaw ba marque amul amul am ci. très bien ah, label. <laughs> même bu dee kaasu ataaya sax label label doon xaar nga. loolu laa gëm nga may ma porox ndool rek ma mën cee wax. may naa la porox loolu laa gëm. ñun bàyyiwuñu dara. du kese du cadre ñoo kese. Hmm. ci lépp la dugg. buñ ko yàlla maye incha allah te loolu loolu moo suñu gëm-gëm loolu moo suñu gëm-gëm mm, te kontaan nañ trop ñun tamit parce que tey jii mënoon nañ ñëw ngeen xeeb ñu bu baax a baax <laughs> mais defoo leen ko sûrement Badou pas du tout Badou ku yàlla baax non non pas du tout nit nit nit nit du xeeb moroomam oui may waaw donc de xol dafa seddate rek mm. waaw xol dafa seddate vraiment parce que émission bi tey euh, ba ñu tàmbalee ba léegi ñu ngi wax ci consommer sénégalais et je pense que ne ñun waa RTS 2 duñ fi yem mm-hmm. au delà ku nekk dem def commande am personnel

Ah, té bu gars yi nelaw. Mm-hmm. ñu ngi tok di xalaat. Mm-hmm. très très bien. Mm, yàlla mën cërale loolu. bu ñëpp di nelaw. Mm-hmm. ñu ngi tok ci kaw la di xalaat. très bien teg suñu ataaya nak yal na mais tàng ataaya baa ngi baax rek. espérance bi gën a ñëw yal na ànd bi yàgg. yalla na yàlla barkeel li ngeen di liggéey. Eh, Sénégalais yëpp yal nañ ci japp eh, te defe naa ne RTS2 comme nuko May waxé ah dañu né encore plus proche de vous ça su ne suñu population la ñuy gën bëgg a wax nako Carrefour des Arts nañ ko wax ca kaw. ah bu ko défé ñu invité leen waye tamit euh, mom amna benen bu muy def bu euh, euh, label 221. di ben magazine euh, dina len ci dugal Inshallah en tout cas RTS dal dina len jappalé euh, ba nopi nak di remercier encore une fois Badou Kane euh, di fatali nak Rise. waaw Rise nous la Rise on ni jappalé genre di len jang comment partir de rien liggéey jëm dama sa bop mm. gëm sa bopp. L'idée c'est quoi Juste développer notre pays, développer notre continent, Inch'Allah. C'est ça, Raïs. Nous sommes euh, Dakar, ville, à deux face Mbao, Thiès pour nous contacter c'est 77 201 61 98. fekkee tamit ci jeune comme Amadou Amadou. yow nga franchement nga eh, am lo xamné liggéey bu baax la ñu ko indi ci plateau bi ñu indi ci plateau bi incha allah loolu dara. en tout cas ñu ngi lay euh, remercier bu baax a baax Badou Kane saa su ne et puis nag di ñu indil ñii daf ñuy neex parce que nag euh, dinañ ci waxtaan am ay sujet waaye am ay exemple mm-hmm. yu nga xamante dañuy toog ci suñu plateau neex nañu torop kon nag macha allah label euh, Amadou Amadou c' est lancé et c' est parti pour jëm ca kaw a kaw kaw. macha allah mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci mbirum société ànd ci ak suñu professeur Shadow dafa mel ni daal tey émission bi daal lëkkalante la daal parce que la ci professeur Shadow mbokk yi di indi tey tamit eh, nekk na lu nga xamante ne bi dañ koy faral di gis dem ci liggéeyukaay ba noppi nag liggéey ba nga fa war a def defoo ko wala nag di tricher eh, loolu nag du jëmale réew kanam du jëmale label kanam du jëmale dara kanam mbokk yi ñu xool lan lañu si professeur Shadow eh, indil dellu si mën cee waxtaan ci suñu plateau kenn mu doon mbégte ci réew mi Sénégal daal dina jël raw gàddu bi ubbi trophée bi médailles yi ak lépp lu mu àndal tey ci championnat international bu ñu jagleel caaxaan ak fontu. nañu jàpp ne fii ay at Sénégal moo yor raaya ak fontu mu tombé ñu tabb ñu ni ki démb ci top 5 réew yoo xam ne ñoo dax perte ci àdduna wérgal këpp jaaree ko ci mbelelele ak détail ci noonu dañuy dem jële ji. Euh, suñu ndaw mu ñu fa toogal ci boobule championnat boo xam ne amul benn njëriñ waaye jël nañ fa raw gàddu gi euh, mu di booy rappeur du Moussa Thiol. yee du Moussa Thiol yow euh, caaxaan ak font mënul weesu ci championnat bu toll nii <coughs> nuñ fexe ba am sa fuñ mun a defee suñu direct mais garaawul coolul. gis nga de benn booy rappeur de lañ fa yónnee booy rappeur du Moussa Thiol uy ma du Moussa Thiol yow. ana lan nga ñu mun a wax ci. boobule euh, championnat bo xamné Sénégal a jël raw gàddu gi jëluñ coupe d'afrique Afrique jëluñ coupe du monde jëluñ benn coupe waaye coupe bu caaxaan ak fontu baxna rek euh, yo la ñuy déglu waxal. effectivement Shadow donc euh, ñu ngi fi ci championnat bi nga xamné Sénégal jël na li nga xamné mom moy mooy raw gàddu bi Sénégal réewu caaxaan ak fontu mu don lu sedd xolan mu don lo xamné dafa neex neex a neex ba melni ni dootul jeex neex a neex neex ya ma gëna xam. waaye léegi uy ma est ce que mën nga ñu wax lan lañ mën a jàpp ginnaaw trophée boobu la nga am bon luñ mën a wax bëri na bëri na bëri na trop bëri na fii donc caaxaan ak font mënul di wax lu dul dëgg dëkk di wax lu dul dëgg di tuddee meew meew meew meew meew meew meew meew meew meew meew meew li nu mel fës na lool ci réew mi dafa mel hal, xaal ci période xaal nit kàddoom nit kàddu te léegi xam nga kàddu xollitu banaana la yow tumuranke na fi kàddu ak moo tumuranke ci réew mi Sénégal ko na ci ci walu xëy quoi ci lan nga ñu mëna wax ci épreuve bobu la nga xamné Sénégal itam jël na mom dafa melni épreuve yi moko jël bi effectivement caaxaan ak fontu mënul wessu di fayeeku weer te doo liggéey tous xamoon nga nit na la weer yow do xey waxtu do wacc waxtu tek ci bureau di connecté wo wala di wundalu di wote téléphone ak lal waxtaan c'est pas sérieux caaxaan ak fontu mënul wessu loolu caaxaan ak fontu mënul wessu nga wara signer ak cacher ben këyit ngay graw lu di sop di dawloo borom ay fani fan mu tardé tardal réew mi ma ci épreuve yi nga xam ne moom mooy cat gi yar gi ak jikko yi dégg nañ ñi Sénégal ràññeeku na ci lool ana lan nga ci a àddu ci épreuve yooyu la nu ñu rawee gaa yi sax du jàmm te leen a buddi yow nga fekk nit ñi exagéré buñ jox ñu coupe bi jox ñu trophée yëpp ah dama xam ne réew yi ni ñuy bëri yëpp ah doy na waar ci ràngal itam Sénégal daal dina si ràññeeku caaxaan ak fontu mënul wessu ne ala lu rew bi jiss bi ba noppi du mujj fenn caaxaan ak fontu mënul wessu ni xew ci tali bi ya ma xam ah yow antenne bi ya ko mom jamono ji de lu la neew xal saa yi ak fontu mënul wessu boole maag benn caméraman boo xam ne xamul dara quoi saa yi téel ma sa caméra bi ha ah, li ñuy wax ni dafa am solo quoi yu so nu may animé ni sa nga xamne ne ak fontu la virus la virus la day day day day walé caaxaan ak fontu mënul weesu mbelelelee perte temps di wax lo maîtriser wul ak waxum politique kessé donc defal ñu ben résumé bu ndaw nga wax ñu après ñu ndar képp li nga xam mom moy euh édition spéciale bi ci xana fontu mënul wessu nga dëkk ci luy suuxal réew mi nga dëkk ci luy sikkal réew mi nga dëkk ci luy sukkal réew mi nga dëkk ci luy soxal réew mi di gañ ak a taadal sa concitoyen nga faté ni yaay taadal réew mi ci xana fontu mënul wessu li ñu mel kon suma la dégloo bu baax mën nañ né ci xana fontu ak perte de temps motax suñu réew di cokki cokki ba tay waxtu bo xam yeneeni réew ñu ngay reppetal wala reppetal nañ labbali seen fas ba nek sa kanam ba nek sa kanam sa kanam a kanam luñ fi lim yépp sénégal doon ku ci fës motax ñu jox ko raaya boobule mbokk yi euh, di leen jox dig dajé ni ki euh, no yoon non non eh, non bul tej bul tej na bul ko tej na may ma ma am lu sanni ma am lu sanni ci wa ya ma gëna xam ci wa donc sank yaa ngi wax ay labali fas fas nek sa kanam xam nga ñun Sénégal la ñu gëm labali fas taxul fas raw fasanga sa kanam labali fas taxul fas raw fasanga sa kanam labali fas taxul fas raw fasanga sa kanam à vous le studio. merci beaucoup de nous rendre l'antenne justement professeur Chano ñoo ngi lay euh, nuyu bu baax a baax euh, euh, caaxaan ak fontu yaakaar naa ne Badou la wax. daal doy na waar mais nag euh, raw gàddu bi woon ñu ko mën a jël nag. xam nga su ma koy non non dëgg jël nañ ko xam nga jël ko xam nga dama koy wax fii gars yi di ma mere maa ñu war a génnee yat bi gars yi fon damay dóor ay yat non du question yat dóor nit mooy lan. ay pénalité il faut uh-huh. ministère antifonte mooy <laughs> créer ministère antifonte xam nga tax uh-huh. ça nous coûte des milliards des milliards mooy uh-huh. lan ak loo moo ci defar boo jógee bi ci kanam dawal toujours rek gars yi yàq ko pourquoi mm. parce que tout simplement am na koo xam ne amul yar amul teggil di nga teg sa caméra dem mu ñëw di ko fooyee ba yàq caméra bi xam nga caméra bi ñaata lay jar <laughs> da ngay war a dem par exemple réunion benn waaye taxaw ci kenn dal na ma waaye taxaw ci benn copain di waxtaan déggu tali bi mm-hmm. comme si de rien était ce sont des choses yoo xam ne indiscipline mm-hmm. dafay tardel dëkk mais dafay yàq dëkk moo tax il faut ñu créer benn ministère antifontu boo xam ne si liggéey ba benn général boo xam ne waa ji ab dof lay nekk mhm. kooku du signe du rey amul sax ay bëñ <laughs> bu xëysee yatam lay yor

sa njaboot lekk si ab nga toog ñaan yàlla mais yàlla ñëwul de du ñëw parce que riba ngay lekk. <laughs> la ko waroon a yónnee nga anticiper. <laughs> ñu ñu préféré ñuy sàcc Sénégal yi. waaw non sérieux waaw en tout cas daal nañu nañu <laughs> nañu góorgóorlu parce que euh, à la limite on dit que tu mm. euh, dëkk yu bëri.

Omar euh, la euh, bésu anniversaire mu nek directeur bu baax mu nek directeur bu nga xamantene bi euh, mo ngi xëc bu baax baax RTS 2 ak antenne régionale yi ñoo ngi koy ñaanal jamm ak salam ak wér ak wérle ak njabootam yëpp au nom de toute l'équipe de la RTS 2 top management bi nak ak vraiment ñëpp ñi ngi koy souhaiter happy birthday mbokk yi ñi ngi nuyu tamit Sophie Silla nek fële ci Mariste ak Weex nek fële ci rue Bangin di nuyu bu baax nak suñu xarit Yolande Ndiaye xam né choono bu baax baax moko japp motax tamit inshallah di ngeen ko gis très bientôt euh, sur nos antennes Dit di non pas du tout non euh, non non ah, ah, elle est pas comme ça elle est pas comme ça en tout cas ñu ngi ñëpp di Sante ñëpp mbokk yi euh, di leen jox rendez-vous Inch'Allah, suba pour une émission Tam Tam bonne suite des programmes sur cette très belle chaîne au revoir